grand théâtre point tv ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax nag tur day wuy borom nee naa leen ba du 100 la chaque jour nag dañuy dem toppal leen actualité dañuy dem wutal leen information yoo xam ne nii dangeen koy soxla lool parce que chaque jour rek découverte la ba tax na tey nag damay dalal ndaanaan damay dalal kilifa koo xam ne nii kenn dootu ko présenté ci Sénégal kenn dootu ko présenté si wàll wu mu nekk kooku mooy Serigne Cissé bu Serigne Babacar Serigne Cissé maa ngi lay ziare. Euh, nu ngi lay delloo ziar bu baax sang bi ba ziar it mbooleem waa Grand Théâtre TV di leen ziara waaye di ci ziara it sunu xarit euh, Serigne Talla Ndiaye di ko ziara bu baax ak ak doomu ndeem ak ñoom ñëpp noo ngi leen di ziara bu baax di leen jox seen wàccuwaay du nuyoo nuyoo bi gën a sakkan gën a yell muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sang bi baat bu gën a sell nuyoo kooku mooy Serigne Cissé Serigne Cissé ñu gëjoon laa gis ngay def ay sorties parce que macha allah réseaux sociaux yi si wàllum communication miinoon nañ Serigne Cissé lool si wàllu dimbali lu muy dimbali doomu aadama yi ñu gëjoon kaa gis lu waral loolu. waaw li waral ñu gëj a gis Serigne Cissé du lenn lépp jàmm la. damay faral di dégg. yéen ci seen bopp day wax ne doomi bër jàngil bëree yàgg danañ la mos a ñam sëriñ Cissé nag yàlla def ne tëju gi bu yàggee gëjë gi jëse gi yàggee rek lépp lépp lépp la ko tënk day nekk ci soxlaay doomu aadama pour am interview ak yow pour waxtaan ak yow mhm. bëri woon loolu nga accordel ko grand théâtre point tv rawatina suñu mbokki internet daa leen di wax ndax grand théâtre moom kenn ku ne xam ne ne ñoom ndax lu bare bari ci communication Serigne Cissé boo duggee da nga fay gis grand théâtre point tv tàmmal nañ leen ko moo tax ne nañ leen fii lépp loo xam ne ni exclusivité rek dañ leen di ko toppal lu gën a jafe dañ leen ko toppal ba indil leen ko ndaxte suñu internet yi dañ leen respecté dañ leen fonk dawa leen abonné yéen ñi nga xam ne ni abonné goo leen ndax lépp loo xam ne ni ñu liggéey nañ ko rek ngeen mën kaa gis Serigne Cissé am loo xam ne nag actualité la woon wax la joo xam ne bu xasee dem rek dem na waaye làmb ci moment bi mu toll ku waxal làmb am na problème problème ba mu am dama toog ak président Alioune Sarr ci këram maa ngi koy nuyu di ko siyaara ma ne ko président mu ne ma la bayka ma ne ko dañ laa dénk li gën a naqaree lijjanti ci ci réew mi dénk la li gën a naqaree defar ci réew mi dénk la it ñi nga xam ne ñoom ñëpp doole lañ yor te seen doole la ñuy lijjantee kon nag loole ma wax noona moment bii ñu toll am na problème ndax li tax mu am problème damay faral di wax ne mbir lu waay dugg te mu am concurrence day mujj metti ndax làmb ji demoon na ba jamono promoteurs yi dañuy concurrence ci seen diggante ak mbër yi kenn ku ne war a taxaw ak badu na ko mën naa laa jox cent mille boo xam ne bor du ma ca fekk du ko def de danaan la mën naa laa jox cent mille boo xam ne tey ci tey jii boo bëree le premier le troit ma jox la la nga dese le troit pare mbër ma du jot. ndax xañ na Serigne Cissé mara la buy ñaan waye xamna li nekk ci digënté mbër ak promoteur yi ndax defe naa nit jëflanté ak mom ci anam ba mu doon dana dem ba dootu la laq bopam bu dara duggé dina la wax bu dara bu dara déssé dina la wax ñu xam ko nak liko waral moy né bu dé promoteur bi mom limu yor dafa yoré ben 500000 war ci déparé leneen li ci des mu yaakar ci lu melni euh, sponsor yi sponsor yi nag na mu démé won kon làmb ji day daal di métti metti gi muy metti nag loola moo nekk ci làmb ji ba léegi làmb ji bu leen yàlla dimbalewut day gën a wàcc waaye du yéeg. la mooy solution bi lan moo mën a defaraat làmb lan moo mën a taaralaat làmb ba mbir mi mel na mu meloon. li mën a taaralaat làmb mooy ne ñoom promoteurs yi ci seen bopp ñu jéem a def benn say boo xam ne dañuy nekk benn ci biir nekk benn googa. nekk benn ga mooy ne nanu fexe gis benn combat boo xam ne adduna da koy soxla ci biir bi ko adduna soxlaa ñu fexe jàppalante ñoom ci seen bopp jàppalante ga nag duwut ne téeméeri nit tey bokk sot ñaari nit mën na noo taxaw tëgg combat booba ci ñaari nit ñi nag kenn mën naa am woyof jiital kenn bu ko defee dana leen may liñ bëgg ci làmb làmb dana am waaye buñ defee ñoom ñoo ne man kenn rek man taala njaay daal maa bëgg a taxawal combat diw ak diw ak diw ak te kenn ku ne bëgg naa yëkkate dara teg ci sa loxo te sa ginnaaw demeewul noonu day métti. est-ce mun naa nekk parce que promoteurs yi defoon nañu benn kuréel kuréel. booloo nekk benn pour dem. léegi gis nañu ne kuréel googu tas na ñii jaar nañ nii ñii jaar nañ ne ñii di waxe fii ñii di waxe fële. est-ce que loolu nekkul luy sooxal làmb. waa day sooxe làmb xam nga àdduna bi ci gën a bon mooy wax loo gëmul wax loo gëmul baaxul. ndax fi jamono toll li gën a tardeel jamono ci anam bu mu mën a doon nag mooy ne damay toog ak Badou wax ko loo xam ni ku ko dégg danaan ma gongo te la mi wax gëmut ko waaye dama ne la buñ bëggoon a am maanaam làmb nekkaat fa mu nekkoon mbëri di bëree nañ daan bëree ñoom ci seen biir faw ñu nekk wenn say benn say wa nag li ma la ko waxee rek dugut ne ñoom ñëpp ay bokk benn làmb waaye lu mel ni badu day gis benn combat bu aw yoon mu jokkoo ceeg Talla Ndiaye Talla Ndiaye bu yoroo as suut nga yor Euh, euh, sponsor fekk ci len lamb ji da ngeen ko tëggee ni ngeen ko bëggee te du ngeen am problème ak men sering du ngeen am problème ak ben mbeur de ngeen li nga xamni ni nii la Serigne Cissé mu Serigne Babacar wax waye nak dafa am lo xamni ni nak actualité la muy lamb jo xamni ni aduna ñoko soxla woon ñepp diko ciow muy ak Ama balde waxtaan nañ ko ci grand place yi waxtaan nañ ko ci place liggéeyukaay yi ci réunion yek fep modlo Ama balde mo wara sauver lamb ci lamb ji taxaw Serigne Cissé. Mhm. yàggul dara ki ko taxawal. Mhm. ñu dégg nañ ci loxoy yoon. loolu est-ce que dina doxal lamb dana doxal lamb dina tiitloo ëhlu lamb ndax tey ci tey ni ma la ko mënoon a joxee exemple bu gàtt pour nga man maa dégg tey badu dañ lay dénk soxna ginnaaw biñ la mayee soxna si yàlla na yéex nag yàlla nga dund lu baree bari sun borom def ni ci tàkku saan gii lañ la takkal soxna si yàlla def nga génn àdduna wala soxna sa génn àdduna te yàlla na yéex na yàlla nga gudd fan lool boobaa dañuy mel ni loola dañ naan kii lii mu dugg diis na li may wax nag mooy ne moom Luc Nicolas ci combat bii mu tëgg di diggante Modou Lo ak Ama balde lum ci wut ñaan doyut billaahi addunaa may déglu addunaa may teewlu addunaa may bàyyi xel addunaa may siifur sëriñ Babacar sama sëriñ borom daara jee fëgg sama bopp li mën a am mooy ne combat bii moom moo ko taxawal di combat adduna lum ci wut ñaan moom ci jëmmam doyut lu dul loolu dana ci am ay problème poroblème yi nag duhut ne problème yi ci kaw ma tax ñu gàcc ko loola waaye booy maanaam booy gas pax am ñuy suul am pax du gaaw wax ju ma yàgg wax la nag moom si jëmmi boppam. problème yi commencé wul. problème yi commencé ndax bari ci démb def naa benn vidéo euh, ci benn ci benn benn sortie ma wax ko dan koo wax ca suba sa defe naa danoo dugal vidéo bi ca suba sa ki ma def ak vidéo bi woo ma na ma sa waa ji de dañ koo wootee ne dañ koo war a euh, dañ ko war a nangam ci anam ba mu nekk ci wàllum yoon moo tax la ma koy digal. daal moom lu ci mën a ñaanlu doyul lum mu mën a taxaw ci wàllu wa doyul bu ko defee daal badu combat bi dana jàll ci jàmm waaye bu loola amut da sax dana xaw a jafe. Serigne Cissé pare na pour jàppale waa xam nga Serigne Cissé li ma la wax léegi ci sama biiru waxtaan ci waxtaanu suuf nee naa la Serigne Cissé Serigne Cissé Sénégal la du Serigne Cissé Mali du Serigne Cissé Côte d'Ivoire Serigne Cissé Serigne Cissé Sénégal la. xam nit nag ne coono war naa wàcc ci kawam bu ma amee woon numéro direct dama koy wane ko lig mu ne naam ma ne ko moytu li defal lii waaye fii laa ko mën a jaare pour sauver ko moo tax ma wax ko ko te bu ne ma allo dinaa ko ne lii ak lii la te dana xam ne kii la la wax waxu la waxi picc dalay wax wax ju wér joo xam ne da nga xam ne lii dëgg la ndax pare nañ pour dimbale ko pare nañ pour sauver ko bu baax ndax lig li ko laay bokkoon na ci li doon dimbale làmbu bokkoon na ci jàmbaari làmb waaye depuis ba lii wàcc ci kaw ba léegi dafa ne ci ay jafe-jafe nan lay tegu ci yoon nag ba jafe-jafe wàcc ko na ne ma aloo bu ko jafe-jafe wàccut te ngéejoowuñu ko it nag adduna laay wax ak aloo jooja ngéejoowuñu ko bu ñu na aloo bu ko jafe-jafe wàccut lu ci sa raxasoo ma naan ko waaye na def doucement ci combat bi mu taxawal ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé diggante Modou ak Ama duñ ci ñëwagum nag ci Serigne Cissé waxtaan ak moom ci kombaa bi ndaxte kombaa bi taxaw na am na ay gàq-gàq yu ci xaw a am moom mooy ki ko tëgg fu mu toll dafa nekk ci loxoy yoon kon nag mënuñ see xuus waaye nag sañ nañoo waxtaan ak sëriñ Cissé mu Serigne Babacar jigéen ñoo xam ne ni tey dañuy nekk ak seen ki ñu bëgganteel du avancé suñu gisantee du neex su kooka ñibbee mbir ma neex lan moo leen téye waaw man nag damay faral di wax ne nañ bañ lu départ rek ñu jiñ ko rab la ca mën a am nag du ma njëkk dal lenn ci li woote ne ay sëriñ lay muy ñun ñii ku ci départ rab ngay dégg mu koy woo waaye damay faral di wax ne boo wooyee nit ba wu ba wuyu la war nga mën a wax ak moom na ko li ma la doon soxlaa def nga ko wala defuloo ko. dëkk bi ñu bëgg jëkkër bari nañu chaque jour ñu dégg ko ci wax wax ju yenu maana ñu dem ba ca moom ñaanlu waaye bu ñu ñaanlu du ñu gis résultat raba la tiye walla lan moo la topp ba amul a jëkkër kooko day laaj nit ki la woo nga gëstu ay mbiram xam lan moo ko tee am jëkkër sang bi alxuraan dafa neex léegoo léeg ma dégg koy wax ne alxuraan gaawul ma ne ko dangaa xamul alxuraan loolu gars yi dañ koy faral di wax naan naan bu ñuul bee gën a bi daal gaawul ñàkk a xam rek leen ko yóbbu woon nañ ma baal nag gis nga alxuraan boo ko xamee ki ñu liggéey bañ ne day dee nañ ko sangee alxuraan bu la neexee na nit wopp bay bëgg a dee ñu indi teg mu fay ñaar dërëm ñu teg ñu bind lenn ci alxuraan ayatul kursi diggante bu ne ma am lu ma dugal ci biir ma pare ñu def la ñuy def ñu segg ñu teg mu góox bu jógul taxaw ma xam ne xamatuma dara te santuma siise bu doon ne liggéey la boo xam ne dafa nekk ci biir sa biir yaram sëf la nga wax sëf moom ci place la ñuy teg rek pour sa yaram wi nagam dootoo demati fenn da nga naan mému mel ne ab dof kooku dañ laa sëf nga bëgg a toj liggéey booba nañ dem seeti kursi yu diggante bu ne dana am lu ma fa dugal ba ayetul kursi yu daanu ñu am luñ ko def buñ paree saafara booba dañ koy segg ci yinde indi yi ñi tayee ceeb na mi na mi génne ndox moomu liggéey ba bu newoon ci yow noonu lay génnee te ayatul kursi ku ne mokkal na ko waaye lañ cay kii nag lañ cay kii code boobee moo waral yëf ya kon bu kenn taxawati naan alquran efficaceul alquran a efficace borom daara ji dañoo toog na ko yow gu ñun vérifié nañ mosuñoo gis sa compte banque borom daara ji fu sa compte banque ne alxuraanul karim mooy compte banque am kon nañu ñi xamul nit ki li nga xam bu jeexee noppil waaye bul fa nekkati mukk naan efficace naag efficace ut alxuraan kenn du ci tàkk di fay ñiy tàkk tey fay suba tàkk-tàkk yi nga leneen la leen taal waaye du alxuraan sëriñ bi balu ñii seetaan lan nga leen mën a baaxee rek ci wàllum kaaraange loo xam ne ni kat dinañ koy mën a def di ko aaroo loo xam ne ci mën a dimbali bala ñu mën a yegg si sëriñ gis nga sax yow mi nga xam ne danga bëgg a aaru aarale mboolem gox ba nga tëdd jàppal ne fii ci benn tali Serigne Cissé buy tëdd guddi jàng benn kursi mboolem ku fi nekk ci diggante bi man aar naa la rawatina nag nga def secret si Seydi Hadj Malick Bale jàngal benn fatiha bu sell teg ca ayatul kursi yu teg ca lixlaas teg ca falax teg ca naas tëjee salaatul faati bu dee mën nga ko boo ko mënul nga tëjee salaatu ba nga man kaaraange la goo xam ne maara day im si bu dee loolu du ma ko wax sax naan bu dee mbër nga laa bëggoon a wax mbëri ñoom it mu ngoog bu doon ne yow mi nga xam ne sax danga nga dee faral di génn première kaaraange ci doomu aadama nag mooy ànd ak njàpp doo ko chaque jour chaque jour doo ko def ba yu bon yi ngay dégg ci dëkk bi nga am ci sommet de la vie mëntu am da ngay mucc ba faw dangay am jàmm ba faw yooyu moom maa ko baaxee jàmm yàlla yi defal benn ayatul kursi yu fatiha ayatul kursi yu lixlaas falaqi naasi salaatul fati diwoo ko lu mel ni moom kenn gisu ko matin soir saa soo ko mënee def ko bu dee nag da ngay dugg ci ay mbir muy tëddëgër këj dal bari loo may jàngal alam nasara 70 boo koy def loolu moom sama bokki jaskooraa bi laa koy may dangay dugg ci papier muy dëgër faralal di sikar alam nasara 70 juróom-ñaar fukk da ngay xale bu jigéen bi muy dëgër dal jàng alam nasara 70 da ngaa bëgg tukki mu dëgër dal jàng alam nasara 70 waaye alam nasara bu ne day ànd ak bismillahi rahmaani rahim alam nasara sa sadraak ba mu jeex kon loolee boo koy faral di def lépp lu daan dëgër da ngaa jël say kayit def ko ci entreprise kenn wowul la dal ma jàngal alam nasara 70 boo koy def di ko tëjee loola barki sëriñ Babacar si da ngay yokk rek dootoo ñee kenn dañuy wéy di la ñee ngay yokk rek doo ñee kenn da ngay da gars yi dañuy woy di la ñee loolu nga xam ne ni moom la Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy wax waxtaan bi dafay neex loolu ba lépp loo xam ne ni tey jii nii laajaguñ ko ko sax tey jii dañ koy a laaj waaye mbokk internet yi nag yéen lañ fi nekkal wax nañ leen ko fii ci grand théâtre point tv affaire de lépp loo xam ne ni tey soxla ngeen ko rek dañ leen di ci doxal parce que nee naa leen luy daw nag moo neex a làbbali sama gaañ yi maa ngi lay jégalu bu baax a baax ndax bëggoon loo xam ne day jëmale kanam rek moo waraloon waxtaan wi bu dëngee nag ci sama jëmm ji la bu jubee ci yàlla sunu borom la ku ñu laal rek noo ngi lay jéggalu baax a baax euh, di jéggalu sénégalais yëpp di leen ñaanal ñëpp yàlla te naan waaxiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum yàlla na ñëpp am jàmm ci barke Serigne Babacar Sy ñëpp am jàmm ci Serigne ci barke Serigne Babacar Sy loolu nga xam ne ni loolu la Serigne Cissé tàggatoo fii nag la nekk fii ci benn tali soo ñëwee ba ci pharmacie benn tali bi foo laajte Serigne Cissé mu Serigne Babacar dinañ la ko wan numéro baa ngi noonu ñu affiché si suufu écran bi képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak moom rek soo ko woowee di nga ko ci jot nee naa leen fii rek lay xewee ci grand théâtre point tv nee naa leen affaire de grand lay doon lépp loo xam ne ni suñu wax internet yi soxla nañ ko rek dinañ leen ko indil waxtaan ka ak yéen seet ka ak yéen parce que ñun la ak yéen nee nañ leen xeex bi du jeex daw leen gaaw ngeen abonné bu leen ci yem ngeen partager vidéo yi bu leen ci yem ngeen di commenter ndaxte si commentaire yi la ñuy mën di xool li nga xam ne ni tey jii nii war nañ kaa yokk ci liggéey bi war nañ kaa gën a mën a améliorer ndaxte yéen lañ fi nekkal nee naa leen luy daw nag moo neex a laabali noonu la ñuy def pour laabali ko ba du 100 pour cent découverte lay doon l'homme grand théâtre point tv jaa ngeen jëf